salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa yéen mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci ndiggalu xalifi général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké ci jëwriñu Serigne Cheikh bas moom sëñ Abdoul Khader euh, kuréel gi nga xam ni ñoo doon taxaw mbale mi naka jekk doon ko def ci benn fanu safar gi daan nañu baaxoo at mu jot bu ñu gàmmoo ba bisu gàmm ba dee si ba ci suba ga ñu def ko. muy balewaat dëkk bi setalaat ko ba mu set wicc muy talaata bii di ñëw bu delsee kon lañ koy jàpp ci jëwriñu sëriñ Cheikh Mbacke Lappe moom mi nga xam ne moo koy taxaw kon ñu jox sëñ Cheikh Abdou moom sëñ Daam Atta mu ubbi waxtaan wi asalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul sunu kilifa gi di sëñ Cheikh Mbacke mu sëñ Abdul Ati Latif mi nga xam ne mooy njiitul kuréel gi nga xam ne mooy commission assainissement bi yore wàllu mbalem Touba mi te depuis biñ ko tàmbalee ba tey mu nekk ci nekk ca bopp ba nekk ci nakkin wu rafet Euh, représenté ci sañ Basirum sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo yore liggéeyu màggal gi te lépp ñu ñu di ko def ci ndigal ak kilifteefu Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na yàlla yàggal ko fi te wéral ko li nga xam ne moo waral daje bi nag mooy ni ngeen ko xamee rek at mu ne 2008 ba léegi dañuy def bu ñu jubee màggalu Touba gi ñu setal dëkk bi dëkk bi yëpp ak li ko wër ñu àndandoo setal ko ba mu set noonu it lañ ko baaxoo defee bu ñu màggalee ba noppi ba gàmm ba noppi ñu seetalaat dëkk bi loolu nag la ñuy waajal muy mbaleem ñaareel mi ah, war ko yëgoo ak ñëpp ànd ko ak ñëpp ndax ndigal la loo xam ne ci mbooleem murit yëpp la dal loolu nag tax kon ñu ne ci waajtaay wi di ko yëgle di ko fàttali ñëpp mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp waaye rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkk dëkk bi ngir ñu àndale waajale ñu àndandoo waajale ko nañ ko daan waajale waajtaay wi nag niñ ko xame mooy fas na ni yéene bale dëkk bi ci nañ ko daan defee niñ ko xamee itam mbaleem ñaareel mi dañ koy tàmbalee ci jumaa ji ak li ko wër mooy priorité bi ba ci corniche bi xëy na bu ñu amee pas-pasu jàll feneen ñu jàllale ko fa waaye priorité bi mbaleem ñaareel mi mooy biir corniche bi ak li ko wër bu ko defee ñu xamee ko noonu di soññ waa dëkk bi nga xam ne ñoo dëkki dëkk bi ci ñu génn bale nañ ko daan waxee bale sa ron lal bale sa néeg bale sa ëtt bale seeni mbedd dajale mbalit mi ci barab boo xam ni oto dana ko fa mën a fekk jël ko ci loolu kan lañuy ñuy soññ ñëpp te ñu nañ génn fas yéene bale ji ndax mbooloo mi nga xam ne ñooy daayira yi ak ñiy yore tonne bi mënuñu fu ne ñu ñëw taxawal fa seen bopp baleel ko seen bopp tonnel ko seen bopp kon day war ku nekk génn bale noonu ñu xamee itam bu ñu balee ba noppi itam am na lu ñuy soxlawoo muy lu tonni mbalit ma loola ñu ngi soññaat di sant ñi nga xam ne ñoom lañ ko daan àndal muy regroupement chauffeur yi benn yi ci dëkk bi yëpp waaye ñu ngi ciy woo mbooleem transporteur boo xam ne am nga oto bu yàlla dogal mu mën a tonni mbalit ñu ngi ciy soññ ñëpp ku am oto loolu itam ni ngeen ko xamee lay doxal oto ya gasoil lay doon euh, ñu ngi ciy sant mairie bi nga xam ne ñoom lañ ko baaxoo di àndal ñu ciy def seen kéemtalaayal kattan waaye ñi ngi ci woo itam képp koo xam ne ni am nga moyen bu mën a yéwénal loola muy lu jëm ci gasoil bi nga xam ne mooy doxal oto yi ngir ñu mën a tonni mbalit mi waaye ci loolu itam mooy matériel soxla nañ ko noonu itam la ñuy soxlaa ah, ñi nga xam ne nii ñooy ay daayira yuy wallanteeru ànd ko buñ ko tàmbalee ba booba fu mbalit mi nekk ñu dem fa lu ñuy tonni ñu tonni ko ñoom itam am na lu war ci ñoom mu jëm ci seen i xéewal ak seen moyen de déplacement ak yu ni mel loolu itam ñu ngi ci woo képp koo xam ne nii am nga ca man-man ndax niñ koy waxee liggéeyub sëñ Tuubaa la boo xam ne ci kaw murit yëpp la dal dañu fee nekk nun di leen ko nosal ak di leen ci jéem a taxaw waaye fañ nekk ñëpp lañ fa nekkal kon daal euh, yi nga xam ne ni soxla nañ ko muy génn bale ji moo ci njëkk waaye itam lu tuxal mbalit mi ak la koy doxal ak ña nga xam ne ñoo yore liggéey bi luñ mën di jëfandikoo loolu yëpp nag ab liggéey la boo xam ne ku ci ne am na foo ci mën a féete ku man yëpp fa lilaay alhamdu ndax moo nu war nun ñi jaayanteeg sëñ Tuubaa waaye ku mënut yëpp itam lépp loo ci man nga taxawee ko ci ngir liggéey bi mën a yéwén bu soobee yàlla nag euh, ñu ngi ko jàpp at mu ne bu ñu gàmmoo ba bis ba delsi ba ca suba sa kon ren ji incha allahu talaata lay doon muy talaata yi ginnaaw suba ji bu dellusee kon nag bu ko kenn fàtte dañ daan tëj marché yi ñëpp àndandoo baleendoo ñu yëge ko noonu jàppe ko noonu mu mën a yéwénandoo xëy na it bu ci ñëpp jàppee du traîner bay yegg ci yenn yenn yenn yenn étape yi te su boobaa dana yomb ci ñëpp kon daal ñu ngi sant di gërëm di ñaan yàlla sunu borom mu yóbbu ñu ci jàmm xam naa li ci des ci ay kàddu akub soññe kon euh, sëriñ bi nga xam ne mooy yor liggéey bi te doon wax ci kàddoom ak ndigalam dina ko mottali incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah de daa mel ne kàddu yi sëriñ abdu mat na sëkk dara dara lu ñuy doon amatu ci daa fekk rek ne moom mbirum sëriñ bi mooy yaatu yaatu koo xam ne. mel ne dara du ca doy waaye li ñu waroon wax lépp sëriñ Abdou mii wax na ko leeral na ko soññee na ko kon gën a soññee rek lay doon gën a soññee ji nag la ko ci mbirum sëriñ bi ak diisu mbirum sëriñ bi ba nga xam ne lu ci def ci yitte doyut lu ci def ngóo jàmbar doyut ndax mbirum sëriñ bi moo toll noonu li ñuy sàkku ci lu baax it moo toll noonu kon naka jekk rek nan ko fasoo ji rek du mën a ñàkk nan bokk fetli suñuy laxasaay du mën a ñàkk nan bokk góor du mën a ñàkk liñ ci waroon leeral si ñëpp leeral nañ ko mooy niñ ko daan doxal rek lañ koy doxale waat waaj takku nas ko song ko tongandoo ko ëpp ko doole yéwénal ko loolu nii ko sëriñ Abdou waxee lay demee ndax ñi ñu daan woo rek la ñuy woo duñ bàyyiwaat kenn muy taalibe Sëñ Tuubaa yëpp rawaat nañ bokk dëkk ci dëkk bi ak kenn ku ne nu mu ko ne ma rek woo nañ ko noona lu waaye am lu ci mën dem rek woo nañ ko noona ndax dañ daan wax naan bale moom ñi koy seq mooy ki yenu yoru bale ak baleem di bale war a yoru radoom di radu nañ koy tonnee fañ koy teg mooy oto bañ koy teg oto ba ab gasoil la koy dawal ña koy ña it bale itam bu xewlu jotee dañuy bëgg a xewlu kon lépp loo xam ne luy tax yooyaa mën a jàppandi rek la woo nañ képp lu waay man te def ko ci man ko caa def kon ñu ngi ñu ngi ñi génn bale di woo ñi indi jumtukaayu bale yi di woo ñi am oto yi ñu def ci mbaleen mi yóbbu ko di woo di woo ñi mën a andi ay xéewal xéewal yi ñu defaat ci mbaleen kon yooyu moo ko seq sëriñam tudd na leen ngeen ñëpp ñu waxit ne naka jëkk mbalem ñaareel moom daanañ tudd biir corniche bi ndax boobu yi dañoo gëstu woon ba gis ne biir corniche bi mooy gën a taq mbalem ñaareel ci biir corniche bi lu gën a jege biir dëkk bi gën a jege jumaa ji moo daan gën a taq ndox lu mel ne jaaykat yi li ñu fiy bàyyi lu mel ne ñam yu màggal yu jëriñootul daan ko def ci sotti ginnaaw kilifa yi loolu nag am na ci loo xam ne wàññi na waaye dafa wàññi ko rek waaye des na mi ngi fi kon bu kenn yomb na dinaa tàyyi bu kenn ñee bu ñee demee mu doy loolu boobaa itam dana ko diisal ci mbagg ña dem bu kenn ne demoon naa ci bu njëkk ba bii daa yomb bii dara mbirum sëriñ bi dara tuuti ci dara dara woyu fit li ëpp solo mooy ni ko mag ñi daan waxe ndigal lu mujj ñëw jàppal ne ndigal li ci la sa faju aju nekk donc loola ndigal nga jàppe fonke ko noo fonki wutoon sax la jàll kon mbalem mi buñ ne mbalem ñaareel nii daan demee wala daan daane wala daan gàtt wala daan woyof ndigal li ci boppam ndigalu sëriñ bi ci boppam moo mënta woyof tuuti moo mënta woyof kenn ku ne nga def sa yitte ci ndigal li def ci sa pasteef ba jàpp ne sa faju aju mi ngi ci liggéey bii kon nag noo ngi gën a talalaat loxo yi di ko gën a façon waat nan ko daan defee di ko bëgg a ànd it ñan ko daan àndal ba lan ko daan nan ko daan songee mu yomb buñ ko songee waatee nii mu gën a yomb kon noo ngi woon ñëpp di sañ sant ñëpp na mu daan demee itam nga xam ne lu ci mën a doon danañ koy diisoog sëriñ jëmb ma jiite Baay Faal yi jiite kër saa Ibra te ndigal lañ ci am ba fi mu ne ndigal loole la nga koy wéyalaat ba jokkoo nañ ci ak jëwriñ yi ci foofa jawriñ ji nga mooy moo nekk sëñ Saa Jàmb muy sëñ Magey ak suñ jawriñ ji nga xam mooy sëñ Moussa Mbar di jawriñ sëñ Fàllu ma nga xam mooy moo daan taxawaat liggéeyam sëñ Saa Jàmb bi ginnaaw bu ko sëñ Saa Jàmb yëpp jiital na ay rakkam këri Saa Ibra yëpp sëñ Saa yëpp Saa Ibra yëpp ñu woo leen sëñ Fàllu moom itam daca naan ràññi ko ci ndigalu sëñ Saa Jàmb ak nam daan yore kàddu gi kàddu sëñ Saa Jàmb ci sant ñañ bokkal liggéey ba bu ñu leen war a soñu soñu leen bu ñu leen war gërëm gërëm leen loolu lépp jaaraan nañ ci fañ ca daan jaar kon nag noo ngi séntu ñëpp waaye noo ngi séntu Baay Faal yi ñoom itam dañ daan def seen màggalu Seex Ibra jàllee dibéer ñu bàyyi ñu delloo bagage alterné ji noppalu ji tuuti ba tax ñu xëy songi liggéey ba noonu rek dañ ko fas yéene defaat kon ñoo ngi waaj noo ngi too noo ngi tàllal loxo ñëpp fas ko yéene ànd ak taalibe bi Sëñ Tuubaa yëpp tey ñaan Sëñ Tuubaa gàttandul boppam nangul nu boppam jàppaleel nu boppam ba liggéey bi ni ko bëggee nu defee ko ni te buñ fa jógee su ne aju fajanu ñëpp sa yaram baat ñu tey ngoog kon na ko ñëpp dégg te jëfe ko te xam ni sëñ bi moo ko woote te murit moom bu xasee dégg ndigal rek jëfe ko rek lay def kon ñi ngi koy fàttali euh, bu ñu gàmmoo altine talaata ja bu delsee bis boobu lañ koy woote mu doon mardi le 27 novembre euh, fii ci dëkk bi ñu ngi ko yëgal ñëpp ñu jàpp ko pëseef te xam ni bu sëñ bi xasee woote rek kenn ku ne da ngay bàyyi yitte jëpp jublu ci mbale mi